mbokk internet yi dalee nag jàmm coowal troisième mandat gi nga xamante ni nag euh, daanaka ñëpp euh, moo nekk nag ci seen gémmiñ yi ku ci nekk di ko ruumandaat dina ko defam du ko def kii di journaliste bi di Madiambal Diagne daanaka nag ñëw na daal di nag waxati moom Madiambal Diagne ñëpp xam ko nag ci ay déclaration yu doy waar saay su nekk yu muy daal di amal wala boo ko attaque yu muy amal jëmale ko ci ñi fare ci opposition bi rawatina nag Ousmane Sonko mi nga xam ne saa bu defee les chroniques jëmbal Madiambal leen lundi bu jot daal di ko ci nag euh, soos ko ba mu saf rek moom du am lu ko neex moom ma Madiambal Diagne troisième mandat bi déclaration bu surprenante la ci daal di nag def moom mi jagleel ko presse étrangère bile ndax keroog ci entretien ba mu accordé France 24 ak RFI moom Macky Sall ah, daanaka nag gën a dëggal li nga xamante ni nag ah, moom mooy nii noowam nii noom googule nag ah, moom mi président Macky Sall di campé ci nag nii wii nii noom gi ne nag bugguta daal di nag alimenté benn curiosité bu nag benn nit kum ci mën ci doon moo tax nag am na ay partisans et opposants yoo xamante ni ci troisième mandat bi la ñu di nag nekk. te nag il faut que ñu daal di euh, nag jéem a digérer benn mbir bu ñu sukkandikoo ci Jeune Afrique ne nag journaliste bii di Madiambal Diagne nekk directeur du groupe Avenir Communication di Le Quotidien nekk itam jege ñaale président de la de la République Macky Sall daanaka nag bokk ci ay partisans wam euh, moom nag ne troisième mandat bi moom il est convaincu que lu am lay doon euh, tout d'abord parce que moom Madiambal Diagne nee na nag dama nekk nit koo xamante ni nag ci sama regard par rapport ak démocratie ak nag peuple bu souverain euh, mënu ñu war a doxee muy peuple bu nag euh, boo xam ne bu indépendant la euh, moom moo war a décider nag lu ko neex depuis toujours man dama mëse daal di lank li nga xam ne mooy limitation des mandats moom Madiambal Diagne ne nag lan moo tax mu daal di bañal li nga xamante ni nag moom mooy limitation des mandats mooy ab moom mooy souverain peuple moom moom boppam te nag peuple bu moom boppam war nga nag Euh, lu la neex ngay décider ci nag ku la war a jiite euh, bu fekkee dañu décider nag ne benn euh, Macky Sall mu war a jiite pour l'éternité ñoom peuple bi ñoo koy décider te loolee sa travers à travers des élections yi nga xam ne moom la ñuy daal di nag def moo tax nag jamono ji nga xamante ne nag nee na peuple bi ci boppam bu leen neexee am nañu pouvoir daal di reconduire un président aussi longtemps bu ñu ko daal di nag bëggee comme nag ni ko daal di nag ne lépp moom Madiama Diagne daf ko confirmer sax a ca colonne yu magazine panafricain bi di Jeune Afrique waaye nag Jeune Afrique di révéler itam ne Madiama Diagne dafa daal di rek considérer réforme 2016 bi lee muy nag li nga xam ne mooy constitution bi Macky Sall daal di nag euh, laajaat muy référendum ba ngir ñu daal di nag voté ba xam ñu daal di nag soppi euh, li nga xam ne mooy constitution bi waaw wala boobu lee dafa daal daal di nag daana ko jur ab constitution bu bees tàq autrement dit euh, compteur yi lépp la ñu daal di effacer pour président de la république Macky Sall 2012 la toog naam waaye nag ca 2016 la ñu daal di nag effacer li nga xam ne mooy compteur am nga ga ñu koy compter nombre de mandats yi bu ñu sukkandikoo ci moom euh, Macky Sall kon jamono ji daanaka premier mandat la nekk waaye nekkul benn yoon euh, ci nag second mandat comme niñ ko bëgg a gëmloowe askan wi